sëriñ Ababacar néga ni daaw réew mi jaxoon na tiitaange amoon na ci ñenn ñi ndax dayoob xëccoo njiitu réew mi la woon fu nu taxawoon doon ñaan jàmm ci réew mi rawatina ci ëttub Maam Maodo Malick bii yow ak njaboot gi ñaan ngeen ci bu baax yàlla nangu lu jafe woon amoon fii ci réew mi ñu woote ci jàmm altine nit ñi dem dellu ci seen liggéey président Macky bi ko yàlla tegaatee ci bopp réew mi ci lu kenn werantewul mu jóg woo ñépp ñu pencoo yittey réew mi li ëpp ci kujj gi wuyusu ko ñu am yaakaar sax ne li ci des ak si néew danañ fekk si ndax loolu mooy taaral suñu démocratie mooy taaral suñu nekkin ñaanal ngeen président yàlla tegaat ko ci boppu réew mi ñu ngi sàkkuwaat ci yow yaag njabootu maam Seydi Alhaj Malick ngeen ñaanal ba yàlla mottali yéeneem ci réew mi mu continuer ay projet yàlla sàmm réew mi ba sunu gaal gi teer ci tefesu jàmm sëñ bi nawet bi amoon nañ ci ay xel ñaar waaye fii mu toll nii daanaka jeex na yaakaar tàbbi na ngeen ñaanal lépp loo xam ne ne baykat yi jël ngeen ko ci ñu muurloo ko sali ala sajidin qablal wara fa ala bi sabi miati amin rab amin rabbi allahu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu